maa ngi lay nuyu. diir maa ngi lay fay bu baax baax baax. maa ngi baax baax macha allah. dëkk. jaxaaw. man bu bu moo sama maam. Diouf laa sant. fii mooy sunu cosaanu maam. mais waa këlëb. boo kan Ndour. di sargal sama xarit muy Badara Ndiaye muy réciteur de bu bu bu moo tax ma ñëw tey jaxaw. tey dër bi daa gën a yokk lan la. guddi gee da guddi gee dafa guddi dafa guddi. guddi day yokk waaw. xaalis bi daa mel ne dugg na de ndax wuli léegi. promoteur la daa mel ni làmb ji da koy waaj a bàyyi promoteur avance yi nga jot a lekk sa diggante ak Calcio sa diggante ak Lirou Diane ndax Lirou Diane barki démb jël naa ko wax na ba jooy nee dem na États-Unis entraîné ba daj ay coono nga daw nee na yow ti ti ma dusi ti dusi ti ma moom moo duma ko faale dëgg naa muy wax rek mais na xam moom daa kontaan parce que lam di lu mu amul moo tax kontaan di wax rek. non doole bu ñu doon ba bët set maa ko mën. bu bu bu ñu commencé suba. di bëre ba guddi. may ma may daan yëpp. lan daw. ma di. moom loolu la wax. waaw moom loolu daw ma. daa amul ci wane kon quoi. mais loolu mënoo mënoo bëree am lundi loolu mënul nekk. waaw loolu mën na nekk mënul nekk mais di gërëm aussi waa Réfane di gërëm la mel Réfane Jibril Thiaw lamb ji ma teg Réfane ay atandi ma koy teg moo tax aussi combat bi mu tombé sama lam man maa ñaam tamay kenn ne non mënuma bëre dimanche ba may tëg lam parce que ki may bëreel dafa bari wax wax ne il faut ngeen ma ma préparer sama combat sérieusement du ma caaxaan du ma kaf ñëw door koo barke Seydina Mohamed liiru jaan bés bu nu bëreewaatee bu amee jom dootul dinaa ko téye di ko dóor di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba mu daanu boppam. yow di ko meree mu ngi wax rek. man a ju bëri. billaay wallaay. li moo taxaw ma ne damay kee. mënu maa boole bëri ak dëgg lam na ma may rek. mais jamono jii moo gën events moo ko tëgg. mais moo teewoon sama licence. jàmm sama waay la. nee takkal Jamaïcain Lirou Diane booy bu baax la yaa def complot def say affaire waaye Jamaïcain terewu laa bëri. jam teew maa bëre moom Jamaïcain teew maa bëre mais bi mu demee jam ne woon ma ñoo jël sa licence ma ne ko mu toll moom mootuma bëre parce que boobu xam naa sonn naa quoi boobu sonn naa ndax lamb bi fan te Lirou Diane su may bëreeg moom dama koy waajal. di nga ko bëre. bañ a bëre Lirou Diane bilaay dinaa ko bëre Lirou Diane ki man lay bayee bëre bilaay walaay bilaay walaay ma ma maa ngi a mele mu ngi wax rek maa ngi mele billaay wallaay maa waat ci ma lay béyee bëri bi yoon du ma ko dàq de ma ko yoot ba ne ngëm ci door di door di door ba daanu ba mu jaaxaan bu jaaxaanee bu ko bëgg boo abit bi ñoon yëkkati ba. kon yéen ñaar ndax yow moom CNG bi day téye sa man man foofu mooy béyee waaye man fa lay béyee bëre même billaay walaay même bu dinaa ko door bu abiti jàpp ma du ma ko bàyyi man maa ko wane foofu laay béyee moom fa lay béyee parce que bu ma ko daanee dinaa ko dóor bu ñu aj ma.